auzu billahi mina seytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonantaam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fu a nekk ñoo leen di saar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér di ko sàkk ci yéen rawatina yéen ñi abonné ci Daaru Salaam Chifaou Daaru Salaam Chifaou dana seet wala seetle wax la sarax wala wax la sa càngaay foo ma dem defi ko fa nga dem defi ko fa te nag ñoo ngi yéen ci saar boo xamante ne nii moom la wax sóoratul waaqia sóoratul waaqia nag wér na ci ne boroom xam yépp yëpp la dale ci yonent bi sallallahu alayhi saar wi dana joxe wërsëg bari na ay jaar waay nag ci xeet na koy bind di ko sangoo moo xam nanga koy jànge waaye bari na ay jaarwaay suratul waqia bi saaru borom xam yëpp saxal ne saaru wërsëg la yén saa sam nag moo ko fi bàyyi woon ne bàyyi naa leen sama xeet bi suratul waqia ci wàllu wërsëg wax nañ ne ku koy jàng ñetti yoon bala ngaa tëdd suñ borom dina defal wërsëg bu bari kon ku ko mokkal dee ko jàng ñetti yoon bala ngaa tëdd suuratul Waaqia bi saxal nañ ne ku ko bind juróom-ñaari yoon bët bu set nga sangoo benn suuratul Waaqia ba mat semaine bi wax nañ ne da nga am wërsëg xam yëpp saxaal nañ loolu suuratul Waaqia bi ku ko bind diggante aaya bu nekk lii nag mooy aaya bu ñu la ko waxee première aaya baa ngi nii lii mooy deuxième aaya première aaya bi boo bindee isa waqaatil waqiatu première aaya nga def ca warafanaahu makaanan aliya kooku boo bëgg yëkkati ku bokk bu tëggee noonu des na ci yëkkati doomu aadama diggante aaya surat nekk daal nga def fa warafanaahu makaanan aliya boo koy sangoo tamit nag da koy sangoo ci kaw étage wala kaw terrasse boo ko amul nga ay briques wala ay mbool nga teg ko sangu ja kooku dana yëkkati nit ku bëgg a kawe ba tey suratul waqia ku ci bëgg am na ñoo xam dañ ko tëgg ci inna haza la risquna ma lahu min nafadin diggante ay suratul waqia bu nekk loolu lañ fay dugal ba saroo jeex kooku tamit dana joxe wërsëg lool te wërsëg bu am njëriñ lay doon suratul waqia bi wér na ci borom xam ñu ne ku ko bind bisu alxemes alxames nag koy bind boo ko bindee ba pare nga boole ko ak meewum xar nga sangoo ko ñetti fan wala juróom-ñaari fan saxal nañ ne tamit da nga ubbeeku da nga am wërsëg moom ci suratul waqia suratul bi kon baax na nag saxal ko di jàng ñetti yoon par guddi ak boo xëyee bala nga xëy nga jàng ko ñetti yoon kooku moom da nga am wërsëg loolu moom mag ñëpp ko téere yëpp ko wéral moom ku saxal di jàng suratul waaqia ñetti yoon boo la ngaa tëdd boo xëyee nga jàng ko ñetti yoon bala ngaa dem bala nga faatu di nga am wërsëg wërsëg nag ak alal lu benn wërsëg ak alal lu benn wërsëg mooy li nga am te lekk ko mu leew wërsëg nag mooy li nga am te kenn du la xamal dara mel ni yaa ngi àdduna lu ci biir bokkut ak alal nag wërsëg nit ki dina ko am kër am oto boo bëggee ordonnance jënd ordonnance bu bëggee ngénte ngénte ke kenn du ko xamal dara loolu mooy wërsëg alal nag mooy li am lépp yaa ngi am ay sarta nga étage kon wërsëg ak alal nag bokkut alal nag du ñëpp koy am daam ñu yàlla bind jagleel leen ko ñooy am borom alal yi am ñoo xam ne yàlla leen bind rek ñu am wërsëg du ñaan kenn duñ leb kenn amuñ luñ kenn soxla amee luñ kenn bor waaye tamit daanaka doo gis ñoom ñaari kër ak ñett génn kër dong la ñu am. yooyu yëpp dafa mat a jar leeral ak ci wax alal ak wërsëg du benn wërsëg mooy li nga am te jëriñoo ko alal nag mooy li nga am te lépp mën nga am ay camion ay remorque ak ay satoog lu ne loolooy kon suratul Waaqia googu bari na ay jaarwaay yow mi bëgg a yëkkati ko bindal suratul Waaqia diggante ay bu nekk nga def fa war a fanaaw makaanan aaliya nga sangoo ko juróom-ñaari fan. yow mi bëgg wërsëg bindal suratul waaqia diggante aaya bu nekk nga dugal fa inna haza la rizqunaa maa lahu min nafaadin kooku day dox ci wërsëg yow mi bëgg suratul waaqia yow mi bëgg wërsëg del jàng suratul waaqia ñetti yoon bala ngaa tëdd ak boo xëyee nga jàng ko ñetti bala ngaa xëy yow mi bëgg wërsëg bindal suratul waaqia ci bisu alxames nga boole ci meewum xar nga sangoo ko ñetti fan kooku baax na ci yow mi bëgg wërsëg ba tey bindal suratul wàqia juróom-ñaar lay doon nag boobu bu am solo la moom it sa al nga sangoo benn ba juróom-ñaari fan yi mat juróom-ñaari wàqia yu tàqalikoo lay doon saa boo xëyee nga sangoo benn suratul wàqia ba juróom-ñaari fan yi mat kooku lu baax la ci wàllu wërsëg am na ci solo lool mag ñi dañ ko daan def kon ñoo ngi leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen rawatina yéen ñaaw na ci daaru salaam si waaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu